parce que ngeen may ma rek li may wax dafa am solo dama li may wax dafa am solo ngeen may ma kon léegi waxatuma on peut donner la parole au prochain asalaamaaleykum may leen ko may leen yi may leen ma dafa am lu ma leen wax lu am solo li tax dooree sama wax ci m ñi fi jaar ñëpp dañu wax unité de l'opposition may wax ni tey opposition Sénégal kenn du ko tënk rek ci ay parti politique ñi nga xam ne ñëpp nag di réew mi di doxee ànduñu ci te soxlawul ñëpp nekk ci ay parti politique ñooñu ñëpp ci opposition Sénégal lañu bokk tey kenn ku nekk ak ni ngay doxalee sa opposition ñu bëgg nag yéen ñii nga xam ne yéenay le peuple sénégalais dañu bëgg ngeen jàppale opposition bi ci li ñuy liggéey pour bennal opposition boobu ndax tey soo jëlee lu mel ni m li ëpp ci organisation yi ci nekk duñu ay parti politique su ma limee juum waaye ay FRAPP ay M2 ay euh, a marre ay euh, doy na ak keneen ak keneen duñu ay parti politique ay parti politique à côté li ñu war a def nag ba loolu lépp ñu taxañ ko mu doon benn doole boo xam ne ñi ci nekk ñëpp dinañ gis seen bopp ci ñuy liggéey mooy nañu fexe ba jiital esprit ni benn lañu ci opposition bi te benn objectif lañu am mooy réew mi nañu fexe ba li fi nekk te baaxul ñu jëlee ko fi waaye nañ ko teg définitivement sur les rails moo tax yéen je vous rends hommage pour la jeunesse sénégalaise yéen jeunesse sénégalaise je vous rends da ngeen war a xam yéenay ñan yéen yéenay askanu Sénégal yéenay plus de pour cent de la population yéen yéen a toll ci ndaw koo xam ne ku bugg a defar réew yéen la war a wéeru. kon su ngeen demee ba jël conscience te li leer ba leer mooy tey la jeunesse a une conscience politique parce que ci passé bi dañ doon wax ni les jeunes no pas de conscience politique les jeunes ñoo dul bindu ci liste électorale yi les jeunes ñoo dul voté ji tey est-ce que jeunesse boobu moo fi nekk vous avez pris conscience de votre responsabilité historique que mënatu leen toog naan ñëpp a yem jàpp seen njàmbur les mêmes nekk fi depuis Senghor ba léegi même problème yi ñu koy jànkonteel waaye dama leen bëgg a wax leen lu am solo préparez-vous au combat waa ji ñu jàmmar lool waa ji nga xam ne moom la ñu jàkkaarloo ku yaakaar ni wax ju neex ak taal climatiseur toog sa salon moo ko fi jëlee ndax ka sa bopp bëggoon naa leen wax beneen discours bu wuuteeg bi waaye on est obligé d'être am président de la république bu demee bay recruter ay nervi kooku narul jàmm ci réew kon waajal leen seen bopp chaque jour chaque heure chaque minute te préparez-vous au combat te bu leen déglu nag ñi toog naa leen way yéen a yee fitna jàmm nangam nangam parce que Sénégal mooy réew moo xam ne ki yor nguur gi lu mu def rek baax na ñëpp gis nañu mu jël ay samba booy di dal ci kaw askan wi est-ce que loolu yéen ko nangu. préparez-vous au combat parce que ni ngi leen di gis yëpp nag benn poignée la li mu yor ci ay nervi yëpp weesuwul 150 wala 200 vous êtes leen jaaxal donc préparez-vous au combat parce que Macky Sall ci nii wala nele dina abal réew jox nañ ko mu waree ni mënut tey lan la lan la nit doon jàmbat 2011 te doublé wul wala triplé wul wala sax ñu jëpp lañu ko par 10 tey en nañ ma citeel exemple rek ba pare nga ne doo te ku wax nga dal ci kawam est-ce ko nangu li ñuy xaar ci yéen li ñuy ci yéen mooy ngeen préparé parce que am réew li ko war a defar dafa laaj sacrifice ngeen préparé ci sacrifice yooyu waaye sacrifice yooyu du am njëriñ lu dul nag ma delloo ko ci sama mbokk homme politique yi askan wi dafa doyal ci xeex ba jëlee fi dara teg fi leneen. les mêmes méthodes reprendre les mêmes hommes reviennent ñu defaat les mêmes choses ñu war a reprendre ko xeex ba jëlee fi Macky Sall de mais kenn dootul nangu cette jeunesse ne l'acceptera pas nit ñëw toog andi sa njaboot andi sa famille jaay suñu ressource naturelle jaay suñu géej surfacturer les marchés publics euh, instrumentaliser la justice kuwaaka dal ci kawam di di pourchasser les les opposants di tëj nit ñi est-ce ko nangu dama ne Ousmane Sonko bu dee yàlla dafa war a def mu nekk président amatul état de grâce amatul ñu naan nañ ko may day liggéey ku ngeen gunge ba mu nekk président yi son pied votre pied bu leen ko may une minute muy def lu ko neex parce que réew lu koy defar du benn nit je remercie.